Sourang ah. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. Lac de Guiers tey ñu ñëw fekk fi dugub Guédiawaye yëpp tey mbëru Guédiawaye yëpp génn def bu mag di wane ni mbooloo mooy dooleel ngir combat capital bi nga que tey ñun amuñu lu dul Guédiawaye tey bu ñu amee combat bu mel ni kon donc waa Guédiawaye teew dañ ciy sant yàlla baax a baax. ñu ngi koy nag bu baax baax daal. la la ñu gis ni Boy Niang Boy Niang waxam toujours danaan tey lay mujjee tànqalaate fonde. tey lay. mujjee tànqalaate fonde. tey lay mujjee tànqalaate. si kàttanu yàlla si moom lay dépendre. Boña de Lirou Diane ak seen numéro 2 mbëru Géejawaay yëpp Elton Gouye Gui. waaw bi seen bés ñoom tamit parce que ñun ñëpp Géejawaay lañ dëkk kon donc ñoom ñëpp bu ñu xamee seen xarit seen doomu ndey am na combat ñoom ñëpp dañ ciy ñëw taxaw bu baax a baax. démb ni démb ko laajee woon Boña dañ ko laaj ndax combat bi kan mooy ndax bëri am ku diriger Boña. ndax dina am ku diriger loolu la ñuy wax waaw bés ba dinañ xam kuy diriger ci kàttanu yàlla incha waa bu bés ne nee lu muy moytu ci man na fexe bu lu mu wax ko dëggal rek dinañ xam bés ku muy ku muy moytu waaw lu ci mën rab ko def waaw. kan lañ jox favori. non pour le moment la ñu ne dégguma ci cadre bëre la nekk Boy Niang la ñu daa am ñu jàpp ne Boy Niang dafa la bëre bàyyi leen mën bëre bàyyi leen yooyu Boy Niang mënu bëre li muy def dañ na arbitre dana am pip mu arrière ba ca saaku ya di xaar nga fekk si ko bàyyi wax booy yàlla dafa mën la sama dernier mot lenn la man aw ma dugg géejuwaay ah. maa ngi woo Aziz Ndiaye moom moo ne waay moom moo ko ñor kon bés baa ngi nii bésam la di woo sama papa Baye Ala Ndiaye Masata sama mag sama lépp di woo Alioune Sall monsieur le maire Alioune Sall ñu ngi koy woo ci bés bi ni ko bés bi bésam la ñu ngi woo autorité yëpp nekk géejuwaay ah Lat Diop Nene Tall maire Aïda Sow Diawara Bukazali. kanam kanam Mame Boye Diao sama xarit sama.